حاجتها ومن عليه بكل ما له لقد سألت الندى من أين فارتسب لشيخ أحمد مدسيس وهو يا لمن قلنا فيا إلهي بل منه حاجته ومن عليه بكل ما له لقد سألت الندى من أين فاحتسب وفي أحمد فيه وكذب mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow mi siifur Baye Birame 2 Jaamal TV maa ngi lay ñaan ngay commentaire tey partagé tey j'aime bu fekkee abonné go ngir yàlla nga laal kolos notification bu nga bass abonné bi laal kolos notification bop xamné mo ñamay doole. nee bokk na ci al awrad al ikhtiyari hizb sayfi hizb sayfi nak mom li ci Alaaji Malik wax rek xam fu ma bindolé sax wa lam yuxsa ma fihi min al ajaib wala alladi xawahu min garaibi situna alfan min karamatin bihi yaa fawza man laazamahu li ومرة من عبادة السنة وليلة القدر فجانب السنة ويقرأ المغني بعيد سيفي إن مرة قرأت دون حيفي سيد حاج مالك نانا معنا حزب سيفي أم نيوخان دين كوي رقل نان هو سيفي مو كوي جانج دو أم خالص <laughs> وهي دو تيابا تيتم سوم باي ba ma ko ko laajee ni ko dañu ni xisbu sayfi boo koy jàng da ngay umm mu ni eh ku ku bañ na ma jox ma jàng mun ma gis nga bu xisbu sayfi taaliba tijaan bu ko dul jàng moo golo gu mënul yéeg a yem loolu la wax keroog mun ma taaliba bu ko dul jàng moo golo gu mënul yéeg a yem mun ma xisbu sayfi lenn rek moo ci ngaañ moo di soo koy jàng malaayika yi dañ lay sopp ba bëgg nga gaawoo ñëw wuy si sa borom mu ni sooy jàng nii nag mooy tax loolu du la dal moo tax ñu bëgg soo ko jàngee jàngal nii soo jàngee benn sayfi jàngal muxni soo jàngee sayfi bari jàngal benn muxni mu sayfi mu ne ma taalibetiyaan bu ko dul jàng ma golo gu mënul yéegéeyam Maodo nee na li ci nekk ci ay kéemaan kenn mënu koo takk kenn mënu koo làq nee na benn yoonam juróom benn fukki junney karaamaa nga ci benn yoon xisbu fii am na góor gi fii nekkoon sant sàll frère la woon ci góor gi alaaj ma foo ko gis mu ngi jàng fii ba benn bés na mu écrasé ko duma ko fàtte mu benn tisbaat waa këram yuuxu nii góor gi dee na ñu ñëw ci góor gi mi ngi fii ci kaw ni ko góor gi sàll xam nu mu tuddoon rek ko alaaj maxtaar te tuuti woon ni ah? góor gi mat sàll ñu ni ma déedéet du doomam rakkam la góor gu magget la woon booba xaleel nga <laughs> xama koon baax waaye góor gu màgget la fu mu toll mi ngi jàng say fii mu écrasé ko nag mu daaneel ko benn tisbaar ñuy yuuxu ni góor gi dee na góor gi dee na ndeysaan ñu ñëw wax ko góor gi muy ah non non deewul de say fii bee bari ci moom la daal di ma jox kurusam ñu ah. ma boo demee nañ ko ko raay la ko dale ceewu bo diggu boppam ba yowu tànkam ma ñëw laay ko ko mu ne fojjet daf ni fojjet ma ñëw ni góor gi ah moom dama ko raay bu jóg toog mu ne ah deewul dafay jàng say fii lu ëpp rek waaye nag waaye nag bu ko ëppal bu ko ëppal day jàngu leem daf ma ñëwoon sa maam Cheikh El Hadj Malick moom ni mu ko daan jànge bu weer tero ñaar suba ñaar ngoon ñaar suba ñaar ngoon ba mu am fukki fan muy ñeen fukk mu teg ci benn muy ñeen fukk benn mu bàyyee ci ba weer dee loolu de sëñ bi ñu koy soog a loolu moom moo ko wax ni ma samaam Seydi Hadj Maay ni mu ko daan jànge hmm. su weer teree muy jàng ñaar suba ñaar ngoon ñaar suba ñaar ngoon bu mu am fukki fan muy ñeen fukk mu teg ci benn muy ñeen fukk ak benn nee na bokk na ci ngëneelu xisbu sayfi mooy bokk ko benn yoon ñu bindal la jaamu at نانا تيجلن شي احمد التجاني موني حسب سيفي اك صلاه الفاتحه دين نيو وليس مبولم اوراتي دانن لا جوت لي اك ليپ لو بوكو تاخو